الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما كنت أرجي كتاب جسنت برم سبحانه وتعالى يلجين النبي صلى الله عليه وسلم أعيننا هنا الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw nooy yooyu seen émission al istiadaatu li soomi ramadan nga xam ne yéen ko baaxoo di ko ànd ci waxtu wile mooy waajaayu koor waaw lu ñuy waaji leen koor seen émission daal mu ngi ànd ak ci loolu le tey na seen waajaayu koor di préparation mu ngi leen indil leen ci ngëneelu ku woor yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim ci jàngale koor kooku dafa am ay ngëneel yoo xam ni ah ngëneel yu màgg la te ñeel naa ji woor joojule moo wat wu ci njëkk na ci ngëneel woowu ويغير النبي عليه الصلاة والسلام ويغني من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين غرفة كوكو دمتشي إمام مسلم إمام بخاري رواية حديث أولي مو عن اللي أنت حديث أولي نين من صام كبكو ورن يوما بس في سبيل الله كيون يل يلا من قمنا عز متجل وجل مكولا ومعقذا وقري زهزا الله إلى سرين لك وجهه كلمة مع النار تي سفرا بذلك اليوم تبوب لبس سبعين خريفا جروم نار فكي أك سيسون أك نهنت قمنا القريف دفع صيف الشتاء فصل الشتاء فصل الخريف من أكون جروم نعرف كي خريفا موم لين آه، سريل تل ما يمبو تي سفران خم لولو شرفك أم جنلوك وار تيان يلا دايو ولا أم ينتو عليه الصلاة والسلام جعلنا حديث وقمني حديث قدسي لا برمي سبحانه وتعالى دي وخني كل عمل ابن آدم له إلا صيام فإنه لي وأنا أجز به كم نت جلد وي ورنا غور غور لو أك فخنا الدوار إركور يا خم نفرت لتشمهم القرآن قيقل وي مرمز سبحانه وتعالى من وجه حديث القدسي لأن كل عمل ابن آدم bépp jëfe doomu aadama lahu ñeel na ko illaa siyaam muy woor fay nëw na ko koor googu daal lii man la ñeel man borom subhanahu wa taala te waana man ajzi u bi maa koy fay koor woowule xam nga dafa am yoo xam ne kere yowmal qiyaam jaam bi lu mu tooñ ay mbindeef bu ñëwee foofu amul fay xaalis ak asanaatami rek la ñu jël di ko fayee waaye koor duñ ko jël mukk di ko fayee dégg nga ak li naka noonu salaatu ala nabi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yaa ibadallah bari leen lu ngeen di julli ci yenente bi waaye bu leen di sàggane woor rawatina weeru koor wii di ñëw moo tax borom bi day kullu kullu ibni aadam bépp jëfi doomi aadama dee la mu ñeel na ko moom rek la ñeel illa illa siyaam lu muy woor te ina naa la woon farafànceeg taqaleeg asiyaam wa sow waa buur ne fa innaw naka koor googu lii man la ñeel te waana man ajjiw may fay bii ci koor googu moo ana lan mooy fay yàlla ci jaam bi ci lu mu ko fay nag وتين انتبه عليه الصلاة والسلام ميوانا الصيام الجنة من النار إنك ممن إنك يا رسول الله نو ديفنير جنة وبني قمكو من عك جنة أحدكم من القتال كم كان جن بوي قري من علمي دف اندري بوبم بي دارا دو يكس سموم تي غاني غاني جم جم من عوار نون لا ملنا دا فاي نيك لو خامني moom koor googu maaniyaa min al maasi daf koy tërale ci ak mooy yàlla yentene asiyaamu woor junnatun ak pakk la min al naar ci safara ke junnatin kam ak pakk woo xam ne ahadakum kenn si yéen min al qitaal wala kam kenn ci yéen lu ngandayam wala défendre woowu muy yor di ko défendre boppam ci ab xeex mina koor woowu noonu la mel ci ak safara المسلمين والمسلمات شيء الاستعداد لصوم رمضان مي بارباراسيون كورو يا خامنا سي ني ميسون لين تي اندل نين بوكو دار جاك يا خامنا نيوي توپ نات سونو واتان فين مان توتولو نيغي تي غين لو كور ان دو علي صلى الله عليه ان للصائم عند الفطر عند فطرتي او عند فطره دعوه لا تردو kooku Ibnu Maaja Hakim génne na ko te Hakim wéral na xadis woowule yonent bi alayhi salaatu aji woor ji dee inda fitri jamono muy dog nag daawatan am na ñaan goo xam ne laa turadu waaw dee fañ kon bul yow saaran saar yi ndawen ndawen bul ak dog weeg yi jaaju bee fàtte ñaan gi nga xam ne mu ci dogug aji woor ji tee bu ko ñaanee lu mu fa ñaan yàlla subhaanahu wa taala nangul ko ko te loolu ngëneelu woor la bokk na ci ngëneelu woor la mooy fexe jaam wi ah muy dogal aji woor ji ndaate dogal aji woor ji tuyaaba bu mu am moom aji woor ji moom ngay am yow mi ko dogal nag te du wàññi ci woor ak aji ku ñu dogal noonu de yonent alayhi salaatu wasalaam moo ne man fattara saaximan falahu ajru min gayri an yanqusa min ajri saaim shay kooku boo demee ci ahmad imaamu tirmisi génne na ko te imaamu tirmisi nee na saxiix na man fattara képp ko dogal na saaximan aji woor ji falahu ñeel na ko ajru yool min gayri an yanqusa ci lu dul may wàññi ni min ajrin ci yoolu saayim aji woor ji shay'un dara xam nga loolu sa mbokk soo aadiyee yi ñoom ñoo ñu ko gën a xam nit dangay gis na ñoom weeru koor jotaan ñi nga xam ne yàlla may na leen ak man-man dañu sonn na ci lool ci loolu le kon way man yi nag dañ ci fexe di di defar ay ndogoog yóbbu ko ci jàkk yeeg yóbbu ko ci jàngukaay yi ak ñi nga xam ne jotuñ seen yoxo jotu seen ginaaw mu mën a dogal seen bopp nant ndaxte yiw woowu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci bokk na ci koor nag mooy saraxe ci kooku ngeneel gën koy foor yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne na afdalu sadaqa sadaqatun fi ramadan kooku imaam Tirmisi gene ne ko nee na hadis la waqan na daif la wa ala kulli hal afdalu sadaqa gën ci sarax nit mooy sarax wu ñu saraxe fi ramadan ci weeru koor yéen mi ngi wax ci ki nga xam ne dafay dogal aji woor ji ci ak ñam wala ci ak ndox wa xam ne wu dagan la ah lan moo ko ci fekk nag malaaka dañuy julli ci moom ci saati shahr ramadan jibril tamit dafay julli ci moom ci guddi laylatul qadar kooku at tabrani وعب الشيخ جننكو نرى من فطر كيب ودقل الصائم أجي ورجع على طعام تنم أو شراب ولا نانواي نت من حلال ودقن أبيقن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كده فلولين صلت جلنا على جمهم ملائكته ملائكة تيجلين ملائكة تيجامي خمين يعلا يعني ملائكة يعلا تقدر له في ساعات الشهر ci heure weeru koor wi te wasalla julli alay ci moom jibril jibril laylatul qadar waa guddi laylatul qadar woowule te incha allah ci indi ci beeru sunu xadiisu iftaar yi nga xam ne mbaaxoo nañ di ko rotal ci diiraan weeru koor wi yëpp am na mbokk yu baax yoo xam ne sax ñoom xaati ñu may woone ah oustaz ndax ren xadiisu iftaar dina am mana abu ñu fi yalla bayyi té ma ñu tawfiq dé man nañ koy amal na de la waxtu nak nga xam mu nekk lu xat jafe nag moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga wax ci ngeen lu woor nee naa inna fi ljanna baaban yuqaalu lahu rayyaan yadxulu minhu saa'imun yawma alqiyaama laa yadxulu minhu axad gayruhum yuqaal ayna saa'imuun fa yaquumuun laa yadxulu minhu axadun gayruhum fa ida daqul uxliqa falam yadxul minhu ahad kooku mutafaqa alayhi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam inna fil janna nekk na ci biir aljanna waa baaban benn buntu woo ne ñu ngi koy wax rayyaan noonu la buntu yi tudd ci aljanna te buntu aljanna xam nga juróom-ñett la waaye na ci buntu woo xam ne baabu rayyaan la tudd yadxul dina dugg min ci buntu waa saayimuun woori yawmal qiyaama xam nga loolu gënalu koor moo ko mayenet ay daxul du dugg minu ci buntu wa ahadun kenn xayruhum lu dul woorkat yi yaa yuqaal def nañ wax ay na saayimuun ana woorkat yi yaa ñu dal di jóg présenté wu ñu ne naa laa yadxulu minu ahadun xayruhum bunt yi de yéen la ñeel kenn du ci dugg ku du yéen waaw fa idaa daxulu bu ñu duggee ñoom woorkat yi rek uxliqu ñu dal di tëññat buntu woowu falam yadxulu minu ahad keneen du dugg ci buntu woowu وما هي أجي وأرجع كنا المستمعين والمستمعات على الاستعداد لصوم رمضان وقد رجع بك جلد في من تطلو غورك جين ñu ngi préparé weeru koor di ñaan borom bi subhanahu wa taala may ñu fekkee ko te may ñu nag ñu tàmbali ko ci awnoom ak kattanam waaye nag noonu di ñaan borom bi subhanahu wa taala um nekk suñ mujjante woor yenn ay koori koor tofal ci ويو ردق مرمك يوكد في ظاهرك باتن تحزيك معنوي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إن إلى من ديك التوب نفرنك دفلنكو الحمد لله ورد دعوانه أخيرا والحمد لله من حين إلى حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته